démb ci dàq bu ñu dàq élection présidentielle yu deux mille yu vingt cinq février deux mille vingt quatre ñoom nag enquête lu ñu wax mooy dañu euh, dàq élection yi député yi voté ko dàq boo xamante ni tàngoon na jër ci assemblée nationale diggante ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, takk der yi at euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy député yi ndaxte député yi bokk ci opposition bi ñoom dañu mujj voté li nga xamante ne moom moo di bi bu ñoom dugal leen ci biir. ndax waa GGN ñoom ñu ngi woon ci biir l'Obs euh, l'Observateur ñoom ñëwaat ci mbir mi nga xamante ni moom moo xew biir assemblée nationale démb ñu ni GGN dañu ñëw ngir évacuer ñi nga xamante ni ñoo di opposition bi Benno Bokk Yaakaar ak waa PDS ñoom ñoo booloo voté li nga xamante ni moo di loi bi am ci téeméeri voix ak juróoma li nga xamante ne moom moo soxal ba léegi mbir mi di l'observateur ne mbir mi daal dafa jaxasoo biir assemblée nationale démb ndaxte tàngoor na loolu diggante opposition ak ñi nga xamante ne ñoo nekk pouvoir ndaxte assemblée nationale voté nañ lu nga xamante ni <coughs> moom moo di loi bi jëm 15 décembre 2024 euh, te nemmeeku nañ ci biir ndakaaru que kenn mënatul woon liggéey démb lépp daal daanaka dafa tagoon témbe les échos ñëwaat ci li nga xamante ne mooy dàq euh, daq gi ñu daq li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle yi fixé ko le 15 décembre ñu ni nettali euh, gendarme yi dañu dugg biir assemblée nationale dàq député Yewwi Askan Wi ak Taxawu Sénégal yi nekkoon ci biir hémicycle bi Diop Sy di jël kàddu moom ñu ne Diop Sy moom moo waral lépp ndaxte moo def amendement bi nga xamante ni moo waral ñu dàq élection yi ba le 15 décembre Benno Bokk Yaakaar euh, yi nga xamante ni Youssou Ndour moo ci bokk ak Zahra Iyane Thiam ñoom bëgguñu li nga xamante ne moom la président Macky Sall def dàq élection yi après ba noppi tamit député yi li nga xamante ne war euh, ñoom ñoo ko dogal ci suuf ñu ci gis journal bi di wax ci Walfu di Walf euh, licence bi nga xamante ni jël nañ ko ci Walfadjri ñu ne dañ ko dindi ñu ne employé ñi nga xam ne ay père de famille lañ ay mère daanaka euh, ku nekk amatuloo euh, liggéey ginnaaw bi nga xamante ne jël nañu licence su Walf Quotidien li nga xamante ne moom moo di moom moo di euh, loi bi jëm ci loi bi jëm ci. Euh, assemblée nationale ñu voté ko démb nee na ñu voté nañu ko wante euh, waa euh, GGN dañoo dugg ci biir assemblée nationale ak seeni ngànnaay la ñu duggee dàq député yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo nekk biir assemblée nationale voté loi boobu nga xamante ni dañ ko fixé 15 décembre ki nga xamante ni moo di Amadou Ba moom moo signé li nga xamante ni moom moo di décret bi ñu ne yi ndax moom yëgoon na loolu lépp di wax tamit ni Bougane Gueye Dany nee 2 avril Macky Sall dootul nekkati président boo xamante ni ñëpp dinañ ko considérer fii ci biir Sénégal libération ñëwaat ci dàq gi ñu dàq élection yi ñu ne dàq nañ élection yi wante daanaka ci doole lañ ko defee ndaxte euh, député yi bokk ci opposition bi dañ leen a génne dugal ay gendarme def amendement yóbbu ko 15 décembre tolol du kenn ku dul waa Benno Bokk Yaakaar ak waa PDS Guy Marius Sagna ne état bi daanaka du wax dëgg ndaxte dañu dumo yi ñi nga xamante ne ñoo di population yi Moussa Bocar Thiam bi nga xamante ne dafa nangu licence Walf TV te loolu euh, journal bi mu ngi ciy ñëwaat di Youssou Ndour ne euh, Youssou Ndour jël kàddu ne sénégalais yi mérité ñi nga xamante ne moom la président ma Macky Sall def journal ba léegi mu ngi ñëwaat ci internet bi nga xamante ne données mobiles yi démb ba léegi euh, dañu ko dagg loolu ñu ngi ci wax ni waa waa Royaume-Uni di Angleterre waa France aussi tamit ñoom na ñu ci Walf Quotidien di ñëwaat ci li nga xamante ne moo xewoon biir assemblée nationale assemblée nationale jaxoon na lool ñu mujj vote jotee ko ci guddi gi yóbbu élection yi 15 décembre 2024 di nettali gendarme yi ni ñu duggee ci biir assemblée nationale bi ñu ciy wax ni Abdou Latif Coulibaly nee na Macky lu mu def moom moo gën a yées euh, euh, def troisième mandat loolu Abdou Latif Coulibaly moom moo ci ñëwaat journal bi wax ko journal Walf Walf Quotidien ba léegi di waxaat ci li nga xamante ni moom moo di nangu gu ñu nangu licence Walf TV ñoo ne loolu état Sénégal gàcce la ci moom ndaxte loolu. Euh, Euh, defarul li nga xamante ni moom moo di démocratie ndax tëj tele loolu euh, moom mooy taal li nga xamante ni moom moo di démocratie quotidien ñëwaat euh, ci mbir mi xawoon bi assemblée nationale ñu ni assemblée yi assemblée yóbbu nañu li di élection yi datu 15 décembre bii di ñëw di ci wax ni député waa benn député waa PDS ñoom ñoo lëkkaloo voté ko ak ci nga xamante ne ñoom ñoo di takk deer yi ñoom ñoo leen aar ba ñu mën a voté loolu ñu ne débat tàngoon na loolu loolu lépp journal bi ñëwaat na ci dakaar amoon na démb euh, ay euh, jàmmarloo yoo xamante ne euh, par-ci la ak par-là tàngul woon loolu suñu sukkandikoo ci bërki démb sukkandiku tamit ci li nga xamante ne moom moo di quotidien waa Sud Quotidien ñëwaat ci assemblée nationale ak vote bi nga xamante ni dàq nañ ko ba le 15 décembre ñu ne assemblée nangu nañ li nga xamante ni moom la président Macky Sall wax ndaxte 15 décembre lañ ko yóbbu ci police nga xamante ni police surveillance GGN ñëw ci biir assemblée nationale ngir surveiller vote bi te loolu journal bi nee na dëppoowul ak li nga xamante ni moo di démocratie journal ba léegi mu ngi ñëwaat ci Walf TV ak li nga xamante ne nangu nañu licence am ministère su euh, ministre euh, Moussa Bocar Thiam dogal loolu. journal Le Soleil aussi tamit ñëwaat ci assemblée nationale lu fa xewoon démb président Macky Sall moom moo def li nga xamante ni moom moo moom mbir mi loolu Le Soleil euh, moom moo ko wax ñu ne euh, bi nga xamante ni député opposition bi dañu taxaw fi ñuy waxee ni kenn du voté kenn du wax boobu ci le président assemblée nationale jël dogal dugal ay euh, alkaati yi ci biir assemblée nationale bi ñu bëree ñawlu ko loolu journal bi ñëwaat yi ñu ne am na ay député yu ay candidats yoo xamante ni waroon nañ dem si élection présidentielle yi dem nañ conseil constitutionnel ngir déposer benn recours ngir wax ne élection présidentielle yi ñu wéyal ko euh, ki nga xamante ne moom moo def moom lañ jàppoon ngir double nationalité muy euh, Rose Wardini journal bi ne déféré nañu ko L'As Quotidien ñëwaat ci mbir bi nga xamante ne moom moo xewoon biir assemblée nationale démb ñuy député yi daanaka tàgg nañu Euh, teg nañu euh, date yu 15 décembre 2024 jëmale ko ci élection présidentielle yi loolu euh, journal bi ñëwaat na ci bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni moom moo xewoon assemblée nationale démb journal L'Info ñëwaat ni Benno Bokk Yaakaar ak waa PDS daanaka ñoom ñoo waral lépp ndaxte ñoom ñu ak élection yi ba le 15 décembre 2024 ñu ne ginnaaw bu ñu soppee article 31 bi nga xamante ni moo nekk si biir constitution ci la ñu ci la ñu joxee Euh, li nga xamante ni moo di ndogal président Macky Sall mu def lu nga xamante ni luy toll ci benn at journal aussi mu ngi ñëwaat ci réaction Youssou Ndour ak Zahra Iyane Thiam nga xamante ni dañuy dénoncer li nga xamante ni moom moo di dañu violer lii di constitution bi journal tamit mu ngi jox ki nga xamante ni kàddu Abdoulatif Coulibaly génn démissionné nekkoon secrétaire général du gouvernement Abdoulatif ne euh, mbir mi dafay euh, li nga xamante ni moom la président Macky Sall def dafay nasaxal République Sénégal ba noppi lii moo gën a yees lii di troisième mandat Bougane Gueye Dany di waxaat euh, de au-delà euh, 2 avril Macky Sall dootul légitime fii ci Sénégal sur ça ñëwaat ci lu nga xamante ne moo xew assemblée nationale ñu ne Macky Sall yokk na mandat am juróom-ñeenti Euh, weer yu topp di wax lépp lu nga xamante ne xew na fa député opposition yi nga xam ne dañu taxaw ci fu ñuy waxee ne kenn du wax ñi nga xamante ne ñoo di waa Benno Bokk Yaakaar ak waa ñoom journal bi nee na dañ leen doon provoqué wante ñoom dañoo banque seen i yoxoo ñu dara euh, ngir bañ euh, provocation loolu lépp journal bi ñëwaat na ci ñi nga xamante ni ñoom ñaa waa bés bi le jour ci date bi ñu yóbbu 15 décembre 2024 ñoom nee nañu loi bi ñu ko adopté ñooy waa Benno ak waa wàllu Sénégal wax tamit ni ay saaga juboon na fa ay dóorante juboon na fa ay jàmmarloo tamit juboon na fa euh, bu ñuy fàttaliku date bi nga xamante moo nekk 12 des 12 septembre 2022 bu ñuy installé député 14e législature bi mbir mi daanaka loolu rek lay euh, méngool euh, ñu journal bi di ñëwaat nag licence bi nga xamante ne licence bi nga xamante ne nungul nañ ko nungul nañ ko ci Walf TV loolu journal bés bi le jour ñëwaat na ci ñu jeexalee ko ak stade stade ñëwaat ci euh, li nga xamante ni moom mooy soxal équipe nationale bu football ñuy wax ni euh, relève bi moom mooy ñi nga xam moom mooy ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk équipe nationale ku ci mel ni Pape Gueye Mata Pape Matar Sarr Lamine Camara Krépin Diatta ñu ni ñoom ñooy relève bi ginnaaw Sadio Mané Cheikhou Kouyaté wala Kalidou Koulibaly ñoom daal ñoom ñii mën nañ leen a remplacer ci li nga xamante ne mooy compétition yi di ñëw Sénégal war ko euh, amal Aïcha li moo gën a fës ci euh, yéenekaay yi ci euh, talaata bi nga xamante ne mooy 6 février 2024. jërëjëf Pape Malick ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. la xaar nga yëg fekk si suñu studio bi bu ko defee rek ci studio bi plutôt bu ko defee ñu gën a yaatal xibaar yi. waaw ba léegi léegi. léegi léegi incha allah merci à Pape Malick Thiam mbokk yi dese nag ñun léegi léegi ñu dikkaat euh, ànd ak euh, Kadior Cissé ci li nga xamante ni moo di la revue web.